une grande traversée de la Mauritanie à Mour pour acheminer des troupeaux de bœufs à Madinatou Salam. Un nombre hallucinant, comme chaque année, sinon plus. Tout est fin prêt pour la célébration du 17 avril. À quelques jours de cette cérémonie commémorative, Sorna Aïda s'est rendue personnellement avec ses bras droits et Bunt, Sorna Botor et Sorna Adja effectuent une visite à l'enclos pour s'assurer de l'état des préparatifs. Serigne nak nang cianta kon bu mag bi kon bu mag bobu mu don taxna mu dal di yegni sering saliu, li xew digam ak Serigne saliw mbollem li am digam ak Serigne saliw to lolé barkel ba law ci àddina si rawati na ay talibé bopam bis bobu moy kassane li moy bis bimda dajé ak mom de le 17 avril 1946 47 bis bobu moy mooy cosaanul cant gi lepp lu ñu tuddu ci Serigne becc ba ñu ñu diko tuddu ci ñoñ Serigne becc ak i ba ñu ci di ci laax Serigne becc te Serigne Saliou jëf ko nee bu doon am ab reen nee bis boobu moy reen bi bu fekkon jëm la ji doon nit bis boobu moy nday ji bu fekkon ab tabax la bis boobu moy fondement bi kon ak tiant ci la dekk way tiant goo gi mooy cant gu maggi gi moo xam mooy gi moy yegg seeti nag Soxna Aïda Saliou di ko woote. Elle n'a pas lésiné sur les moyens pour la célébration de ce grand jour de cant. sëñ Mbacke danaa def saa yu dikkee bu dikkatee dana raw ba weesu woon fu ko musa teg na kaye woon na. waaye soxna Aida Saliou de 2022 bii teg na cantuk 17 avril gi fu ñu ko musta xalaate woon lu dul rek ci suñu xam-xam ndax xamoon na ni kat Serigne Touba amul tànk ginnaaw te yam jone day gàccaal démbam waaye nag ci réalisation nag mosunoo xalaat ni kat mën naa ak fii lu dul woon ni bi ci suñu bët tegee fii 17 avril bi ak si ren nii mu ko waajale reen ba woo ci àddina te bëggul kenn umpale ko ngir bëgg a wan àddina sépp ne Serigne Béthio day moo fi nekk démb waaye moo fi nekk tey jii moo fi nekk faw te mooy cantaakoon bi nga xam ne kenn tam gi tey jii la gën a jolli cantuk sëriñ Béthio googu muy sant te mooy dëgg-dëgg jëmmam ji woo na ci àdduna si yëpp bàyyiwul kenn fii ci madinatu salaam nag la koy defee bàyyiwul benn tariixa bàyyiwul benn xeet bàyyiwul jullit ak ku ab jullit jinne yi woon nañ leen. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi mbokki àdduna ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xam ni lenn sabab la am te suñ borom rek moo ko xam te it sëriñ bi waxoon ne daawtu barran rahiman neex ma kar ramana fil bahri wal bahri neex ma laaw mawlaana woote boobee it ci la soxna Aida sukkandiku tàbbal ci liggéey bii nga xam ni moom la ko sëriñ Béthio jox mu ànd koog mboolem cantaakondi ni ko sëriñ saali waxee rek bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn nañ agsi ci jàmm fekk ñu ci salaam ñëw fekk ñu fii ci mat Madinatu Salaam ñu fas yéene ànd ak ñoom jëfee ndigal lii nga xam ni moom la sëriñ Béthio Thioune jàmbaar ji am ci digganteem ak sëriñ saali mi nga xam ni mooy sëriñ Touba te it sëriñ tubaa wax ni wablee ilma amal assaali allazi yu kamilul amal kon liggéey boobee du dog mukk te képp ku ci teg bët wala nga dox ami tànk wala nga yore nopp yaa ngi koy gis ndax lii xew kenn mësu koo gis kenn mënu koo dégg waaye fii la xewee ci man Madinatu Salaam te soxna Ayda Saliou Thioune dëgg-dëgg jëmi sëriñ Béthio moo ko jëf waaye jëf ko ci lan baatunu Serigne Béthio biirub Serigne Béthio jëfi Serigne Béthio te muy dëgg-dëgg Serigne Béthio kon bàyyuñ kenn bàyyuñ fenn bàyyuñ ñenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. soxna Ayda est en elle-même la parfaite illustration des retombées de l'action de grâce. On ne saurait dire qu'elle a fait comme à l'accoutumée, puisque routine ne rime pas avec spiritualité. Disons plutôt que Sorna Aïda a encore démontré à la face du monde le caractère intemporel de son sang Serine Bajo.